ak euh, néewub Mamadou Moustapha Ba ba tey ay mbokkam jotagun ci procureur moo sàkk woon na ñu def ci ap autopsie gannaaw ba mu ni autopsie ba la mu wane moo di ne am na ay lënt-lënt tax nag mu daal di ci ubbilu ab enquête ba dénk ko kon dik di division des investigations criminelles xibaar yu ñu amee moo di ne kon euh, soxnaam di euh, Yacine Fall Ba jamono ji kon ñi ngi koy déglu ca moomule mbir moom Mamadou Moustapha Ba ñooro di ripp la fekk baax foofee nag askan wa fay yeewoo mi leen mbir ak doxalin gi am na lu leen ci naqare ndax ne nag dafa am ay nit yoo xam si dañ cee bëgg dugal euh, politique bëgg nañ itam ñu daal di leeral lépp gannaaw ba euh, ñu daal leen di jébbal seen doom su ko defee ñu daal di koy jébbal suñu borom ñu teewlu yenn ci euh, ñenn ñoo xam si foofee la ñu dëkk ca Nioro seeni kàddu Fatou Mbow moo ko taataan. fii mu dëkk di Nioro ba indépendant amee ba tey liñ fàttale ko ak liñ fàttale ko wut mosuñoo am ministre bu mel ni Mamadou Moustapha Ba waaw li may njëkk a def mooy li ma gën a bëgg danaa félicité procureur bi félicité ci wàllu woowu état bi ndax procureur bi moog état bi ñoo ànd su fekkoon ne état bi àndu ci woon du ko def kon nga xam ne wàllu woowu mën naa wax ne bëgg nañ dëgg te bëgg nañoo leeral te bëgg nañ Mamadou Moustapha Ba bëgg nañoo xam lu ko yóbbu nañ ko bëggee nag noonu la ko mbokki Mamadou Moustapha saaba yi bëggee. ndax donte bokkuñoon boor politique nekk na ko nga xamante ni wax dëgg yàlla euh, ku ko ku ko gis wala nga jonjanteek moom tamit li ngay gis ci moom ci jikko mooy ku am yar la ku ku woyof la ku respecté doomu aadama la nit ku positif la. yoo xam ne dañ koy regretter en tant que Nioro wa parce que gis nañ ne nos adversaires politiques ñàkk argument ñàkk lu ñu teg ci loxo population bi aussi tax na bañ dem di di politiser cette affaire là parce que dafa métti tey nit nga jël ay wax yu ñaaw nga jël ay wax yoo xamante ni euh, c'est pas Nioro waa parce que Nioro waa xamul loolu mais moom la ñu gis que ni sur le terrain politique euh, nos adversaires essayé nañ ko utiliser pour lan demal xelu askan ñuy dalal xelu Nioro waay nekkoon kon euh, yenn ci ay kàddu yoo xam si ña nga ko taataanee fële ca Nioro ci fàttali Nioro googe kon fa la Mamadou Moustapha Ba daal di fekk baax bu lépp yembee sax fa lañ ko war a yóbbu ngir jébbal ko fa suñu boroom. ñu wax ci meneen mbir di faatuk Mouhamed Diop Taaya moom nag euh, ak faatoom juróon na coow ba ñu teg ci loxo juróom-benni policier jamono ji ña nga ca kaso ba suba nag lañ leen war a àtte ca tribunal grande instance Pikine euh, Guédiawaye ak njabootam nag njabootuk Mouhamed Diop Taaya nee nañ dinañ dem déglu ba xam lan la yoon di wax Salamata Ousmane Diallo. Ali Sagna Kalabanta Gomis Ibrahim Gaye Aboubakil Ba Souley Diallo ak kii di Sele Gueye ñooy juróom-benn policier yi nga xam ni lañu tuumaal ni ñoom ñoo dóor Mouhamed Diop Taaya ndiki guddik geste dóor yooyee daal di tax mu daal di ci ñàkk bakkanam juróom-benn policier yooyee ñuy daal di tuumaal ci bileeg mbir danañ daal di janoo ci talaata ji fukki fan ak ñaar ak juge bu tribunal bu grande instance bu Pikine Guédiawaye fas yéene ci jàkkaarloo ak ci anam yu doy waar yooyee daal di taxoon ndaw Pikine daal di mer ba futtu gannaaw bi ñu ko dencee nag ci bés boobee la ndaw yi di wutali commissariat bu police bu Pikine daal di koy attaqué laataa sax nag ñuy daal di xamante ne si ni taaloon nañ ko mu jeex tàkk njabootu Diop lenn rek la ñu daal di bëgg mooy justice daal di def liggéeyam waaye ñu ngi daal di woo yi nag bu ñu demee ca tribunal bi daal di ànd ak dal te bàyyi yoon nekk def li mu war a def ci fàttali autopsie bi nag la mu wane woon bokk na ci ni Mouhamed Diop Taya ñeenteelu faar bi ak juróom-ñeenteelu faar bi bi moom moo daal di dammoon waaye tamit loxo càmmoñ bi tamit bokkoon na ci li nga xamante ne si gisoon nañ fa ay damm-damm Salamata Ousmane Diallo Pikine xarajo fi jox may jaar jaajëf Salamata Ousmane Diallo ngeen di wéy di déglu xibaar xibaar yi guddi gi ci rajo Futur Media juróom-ñeenti waxtu moo jot ba tegal juróom-benni simili. RFM rajo askan wi Adama fay ca Sen TV la toog wax ni kon diggante Macky sàll ak amadu Ba coowul xaalis moo ko yàq moo ci itam ay jafe-jafe loole nag moo neexul ay farandooy euh, kile di Amadou Ba ba tax nag ñu ni moom mi di euh, goro ci Macky sàll kàddu yu mu yëkkati dara weeru ca ba noppi itam ay tuuma képp la yu mu tegul fenn tax nag ñu ne Amadou Ba sax dina ko yónnee ab citation directe nee na nag lii lépp euh, Adama fay di def du lenn lu dul nak gën a jege nguur gi fi ci nekk ba xibaar sax ni Aminata Touré jot na ko daal di dalal Omar Sow kenn la ci staffu Amadou Ba ñu teewlu ko gannaaw jokkoom ci téléphone beeg Abdourahmane Diallo. di ñaawlu di naqaru waxu Adama Faye boobu. li nga xam ne au delà qu'il accuse Macky Sall euh, Amadou Ba il accuse le président Macky Sall directement aussi qui est son beau-frère qui est son gendre. pour votre information les avocats du premier ministre Ba ñu ngi préparé une citation directe contre Adama Faye. beneen bi mooy ñu koy ñaawlu parce que tamit ay wax présidentielles yi mooy leen Amadou Ba part favori de dans les sondages léegi dañuy def tout pour casser la dynamique de Amadou Ba beneen bi mooy Adama Faye comme tous les transhumants actuellement ñii xaalis lañ leen jox ñii dañ leen échange moom il échange sa liberté maintenant en faisant le sale boulot gis ñëpp xam nañ ne Mimi recevoir na ko léegi nag comme xam nañ ne dafa am jafe-jafe ci wàllu justice ci wàllu suuf soo xamante ne da luubal fan yii mu garantir leen que dina mën a casser dynamique Amadou Ba bi bu mu nekk di def di mobiliser au niveau national donc loolu c'est un complot boo xamante ne contre la personne de Amadou Ba comme li ñu ko defee woon ci wàllu élection présidentielle yi euh, méthode boobu la jëlaat amu amuñu benn dossier buy incriminer Amadou amul benn rapport bu ko jàpp mais instant yi lu leen desewaat mooy sos lu leen desewaat mooy jël Adama Faye recevoir ko mooy nguur gi jël ko utilité ko contre Amadou Ba maintenant nag euh, les avocats de bi. gi ñi ngi ci wërngal gu mujj gi ndax nag yu bés bi képp ci ah, des daanaka nag ñu baree bari riir utal si ah, ndakaaru lu aju ci programme bi nga xam si nag eh, askan wi jot nañ ko dégg ci yilay candidat li nga xam si nag moom la ñuy xaar ci ñoom reportage u Mamadou Abba Bayo gannaaw ñaari semaine campagne électorale gis-gisu askan bi ci programme candidat yi nekk na lu wuute Omar Diédiou gis ne leaderam am na plan bu baax. programme bu am solo la Amadou Touba ñaan euh, nga am ne am na xam-xam ci mbir commerce tamit ma gis ne moom dafa bokk ci ñu war contribuer pour réew mi bu na avancer ci lu moo tax pare na sax pour teg ay plan d'action pour juste mu génnee saa di jeunesse Sénégal bu nekk ci chômage bi loolu bokk na si itteewum moo tax mu dugg ci politique. Ablaye Gadiaga moom jàpp ne amul benn programme candidat bu ko doy candidat gu wóolu. programme moom bari na kenn ku nekk programme quoi ñii ñu ngi jëm fii ñu ngi jëm fii waaw Pastef daal seen programme ndax maa ngi koy suivre ndax dañ nit ki boo ko bëggee da koy topp seen programme bu ñu lay wax dañ tegal ne la nii ak nii seen programme daal wax dëgg yàlla gis naa moom gars bari daal ñu koy topp di ko soutenir daal di ko xool bu baax daal non yeneen candidat daal moom dëgg yàlla doy ma te jàpp naa bu amee majorité bi mu ah, xam te ni maanaam tegaluñu programme man gisuma ñoom seen programme parce que maa ngi topp ñenn ci ñenn nag mais gisuma dara loo xam ne wax nañ ñenn daal laa ci dégg bu ñu amee majorité avion de daw dañuy couper salaire man convaincre ñu quoi bu ñu sukkandikoo ci Alassane li candidat yi amuñu ay programme ndax loolu du taxawaayu député yëpp ñu weesuwul dañu dégg loo xam ne rôle état la législatif ça n'a rien à voir amuñu programme dañuy xuloo dañuy a def les gens di nekk député naan su ma ñëwee naa leen defaral tali mais il faut qu'on arrête il faut qu'il respecte les sénégalais. naam promesse électorale yi euh, bari na ci jamonoy campagne bi waaye euh, kàddu gu mujj gi askan bi moo ko yore ngir tànn ña koy teewal ca pencum ndaw réew ma. tali yooyee ilimaani jëwriñ yi di Ousmane Sonko daal di nay xibaar ne euh, bis bu ñu amee kon majorité wala sax euh, nguur gi fi nekk mébétam moo di daal di koy yeggale ca kon jafe-jafe yi nga xam si amee na fële ca Kayoor ak Bawol démb kon campagne bi doon amal ca Mbàkke bi muy euh, dem bay tolloog foofee la ko daal di yëkkati mouvement Carrefour citoyen nag daal di nañuy rafetlu yooyu les kaddu ba noppi itam xamal ilimaani jëwriñ yi ne kaddu yu ni mel du fa lu bees. na ci jëf rek daal di ah, topp ndax am nañ ci yaakaar Massaer Ndiaye mooy cordinateur ba ñu teewlu kook RFM ñëw bi nga xamante ni le premier ministre du Sénégal jaar na ko ci zone yooyu nga xamante ni mooy diggante Kajoor ak Bawol. Euh, ñu am ci mbégte bu baax a baax a baax parce que moom ci boppam gisal na euh, boppam ci ay bëtam jaaral fa boppam pour xam la fa xew tey nag jaar na ci yoon wi nga xamante ni mooy ngaay Baba Garage te ñu commencé woon ko lu mat ay weer ci ginnaaw ñu arrêté woon ko régime bi fi nekkoon léegi nag mu jël initiative jaaral fa boppam pour xool la fa nekk gis na ko mu juge ci loolu aussi diggante Baba Garage bi nga xamante ni ak Kër Ngànn musuta nekk ci programmation musuñu koo commencé musuta am financement mu jaar fa pour dem Daaru si kon nag loolu suñu chance la ñun waa gox boobu pour ñu xam ni kon ah ki nga xamante ni moom la ñu waroon a dem pour audience ci toog ak moom moom gisal na ko boppam l'espoir est permis comme ni ñu koy waxee waaye nag gisoon nañ fi ay président wala boo gisoon nañu fi ay autorité daan fa jaar di ko gisal seen bopp ngelawaay tey bu mu nekk rek ay wax yoo xamante ni kon waxi promesse électorale rek lay doon am nañ ci yaakaar nag ndaxte ñun ñi nga xamante ne ñoo dëkk ca zone booba particularité bi mooy fépp fu Ousmane Sonko jaaroon da daan dégg ñuy woy turam naan Ousmane Sonko wala ñuy woy leneen mais tey population bu Baba Garage ma leen di jaajëfal di leen delloo njukkal ba fa Ousmane Sonko demee yoon yi lañ ko doon wax kenn mënul woon dégg mais yoon yi yoon yi ñoom yoon yi lañ doon yuuxu moom nag nee na leen dégg na leen ba pare boo gisee gestes yi mu doon def mooy mbir mi jeex na ba pare kon nag kàddu yi Massayar Ndiaye jiite mouvement Carrefour citoyen Baba Garas gam doon àddoo ca département bu Bambey la nekkee Bambey googee ñoom la leen yitteel ban koy yóbbante député leen war a teewal ca pencum ndawi réew ma moo di jafe-jafe ndox waaye itam ñu gën a jël ndaw yi nekkee ca université Alioune Diop bu Bambey gën a itam defar yoon ya fare foofe Babacar Diouf. fexe ba soppi. loi bi ñu voté pour changer ni ñu yore ndox mi ci dëkkub àll yi. faraat li nga xam ne moo jëm ci autoroute Ila Touba bi. di ay jafe-jafe yoo xam ne nii soxal na mouvement pour le changement dans l'unité Baboucar Ndiaye moo di président bi muy université bi muy l'autoroute Ila Touba muy sénéra bi nga xam ne ñun ah suñu toolu maam la ñu jël muy toolu Bambey sénéra ak Sila nag li ko wër tey tey tey sénéra euh, recherche ba nga xam ne fondamental ba mu doon def tey war na ko def nit ñi pour nga mën a béy tool fii rek à cinq kilomètres léegi tu obligé de faire vingt kilomètres pour tourner yooyu nekk fii au niveau de Gol. ci visite de proximité bi nga xam ne mu ngi ko doon amal ci marché international bu Bambey Séréer ki fi nekkoon meeru Ngogom de te di jàppale Pastef fu mu ne nii nee na war na noo fexe ba département bu Bambey am yoon yu baax. regardez le problème routier la route ba Ndangalma euh, euh, Ndondol Fissel ma euh, Lambaye la route Ngogom Bambey Sérère jusqu'à Mekhe passant par Lambaye et qui va jusqu'à Kër Sambakan nous sommes. li lépp di ay mébét yoo xam ne nii. ki ñu investir ci quarante neuvième place ci liste nationale bu PASTEF nee na dina ci taxaw ba indi ci ay saafara ca assemblée nationale bu ñu ko falee Ibrahima Diop. ne ñun ndawi Bambey ñun doomi ci àq ak yeleef ci nguur gi nga xam ne def nañ ci lu nekk pour jot ko dinañ ci xalaat suñu tànk dubay def lu nekk li nga xam ne moo fiy jafe-jafe monsieur l'hydraulique gis nañ problème aquatec fu nekk dans le département nañ xar suñu tànk dubay pour que problème boobu nekk un vieux souvenir li nga xam ne fi ñu toll ni nag ci campagne électorale bi mouvement pour le changement dans l'unité et la solidarité bu Babacar Ndiaye mu ngi def lépp lu mu mën pour Pastef gagner ci département bi Bambey RFM Babacar Diouf pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar bi ëmb étudiants yi nekkee ca master ca université Anta Dakar li ñu bëgg moo di fukk ak ñetti weer yi nga xam si kenn fayu leen seen i bourse ñu jox leen ko bëgg nañ itam ñu daal di ubbi restaurant ya ñu tëj lu ko mooy nag dina soobu ci ab xeex. Boubacar euh, Diallo moom mooy seen président ñu teewlu ko gannaaw jokkoom ci téléphone beeg Idi Sow. ñun étudiant master l'université Anta Diop Dakar dañoo toog euh, treize mois. joxuñu suñu bourse. léegi nag def nañ li nga xamante ne nii yëpp lañ moom la ñu a def. mooy li nga xamante ne nii aussi moom la yoon may. grève déloger étudiants yi. def point de presse aussi def ay journée sans mais ba léegi donc état muy le ministre de l' enseignement bi ñu nekkee. Euh, dañoo toog bi léegi ubbiwuñu li ci mel ne restaurant argentin yoo xam ne toujours ubbiwuñu léegi nag dañ toog ne gis ni instant bi rang bi metti na trop si étudiants yi mënatuñ ko support da ngay gis sax ku war a jàngi dem réviser ji mais day nekk rang bi des heures et des heures pour juste se restaurer donc ñu ne loolu dañoo bëgg réouverture immédiate des restaurants du campus social sans exception nañ ubbiwaat resto yëpp yu nekk campus social bi beneen bi lu gis ni service médical boo fa demee tey amul benn loo xamante ne nii donc ay médicaments yoo xamante ne c'est urgent liñ soxla amu fa problème la parce que combat bi nga xam ne nii commencé nañ ko duñu ko arrêté en tant ay saafara amul ci li nga xamante ne mooy suñuy jafe-jafe directeur général bu Sénégal confection di wuyoo ci turu magtar Sankhé euh, di nag naqarlu ab injustice boo xam si nee na service yu impôt et domaine boo nekkee ca ba ñoo ko ko daal di gàll ndax ne dañoo ñëw génne ay employé ba noppi nag tëj entreprise ba moom nag nee na dina soobu ci grève bu euh, xiifal Makhtar Sanké ñu teewlu ko gannaaw jokkoom ci téléphone beeg Yacine Gueye. maire Yaraax lañ jógee Hann Bel-Air service impôt Bourguiba. dañ fi ñëwoon jeudi ñu ne ma naa fay sur le coup patente ma ne leen man fayoon naa mairie yàggul maa ngi agros yi ñu ne ma non non lii la ma ne d'accord léegi nañ ma bindal pour comme leen di ma mën a fay ñu ne ñoom duñ ma bindal dara ndax fay bi sur le champ lañ ko war a def ma ne leen nag incha allah lundi man dinaa fay tey dañ fi ñëw lundi douze heures ñu ne ma naa leen dañuy recouvrer naa leen fay xaalis bi léegi léegi mën a leen fi ma nekk nii mënuma ko fay léegi ne quinze heures incha allah dinaa dem fay ñoom ñu ne mënuñu xaar quinze heures naa génnee employé yi nga xam ne ñu ngi doon liggéey ay commande jaamur ci biti ma génnee pour ma génnee leen ñoom ñu tëj place bi dem seen yoon mën a leen loolu dama ko def ñu ne ñoom duñ ma may daal di woo commissaire bu nekk euh, en euh, en kii gendarmerie bu Maris kooku ñëw yenn éléments yi ñu ne nañ may jël si ñu tëj ma ñu jël si ma tëj ma man bi ñu ma tëjee nag commencé woon naa def sama grève de la faim. yoree luñ leen dara ndax c'est la première fois ñu indil ñu ñu indil ñu ñu indil ñu fiche bi commissaire bu ma demee mu ne ma moom. voilà dama ne affaire bi su ma ko dénoncé. loolu moo tax moom daf may tëj daton yi daf may jàllale pour tëj la may jàllale pour tëj ma léegi sànq lañ ma jàpp sànq lañ ma jàpp vers douze heures mais maa ngi alerté ñëpp bis buñ ma jàppee damay sama grève de la faim dama koy démarrer sànq buñ ma jàppee dañ ma indi lekk soxlaaw ma dara ñu door rek ak euh, équipe nationale bu Sénégal ñoom ñi nga xam ne kon amal nañu seen euh, séance d'entraînement bu njëkk jëm ci cinquième ak sixième journée qualification Coupe d'Afrique Maroc deux mille vingt cinq ca terrain annexe maître Abdoulaye Wade te Pape Matar Sarr Nicolas Jackson Chérif Ndiaye wala El Hadj Malick ak kii di Boulaye Dia gannaaw nag ba ñu jeexalee boobi séance d'entraînement ñaar ci ay joueurs daal dinañu tontu ay laaju taskatu xibaar yi bokk na ci Crépin Diatta ak ki nga xam ne moom moo di Cheikh Lo Ndoye entraîneur euh, wala bokk. gardien de but bu euh, jaraaf bokk na ci tontu yi nga xam ni jot na ko indi ci ay leeral bokk na ci ñetti euh, locaux yi nga xam ni convoqué nañ leen niveau championnat bi par rapport ak niveau bi mu fekk ci tanière bi waaye itamit ban rôle la fay daal di amal moom Cheikh Lo ndax day ñëw pour jàng wala day ñëw pour indi ab concurrence ñu teewlu ko. ñetti jours locaux mais gars ak yéen ñu fi ak. perte bu bu bu baax bu rafet en plus tamit ñu ñuy euh, di ñu wan condition yi fii naka la fi demee waaw te ñu ngi ci appliqué bu baax a baax a baax déjà dama ñëw fii pour apprendre pour jàng ba pare waaw après liggéey bi mooy mooy wane ci biir terrain bi lu ma yàlla jox ma jël waaye championnat mi ngi commencé am doole bu baax a baax parce que parce que avant ay benn moo fi ñu dugg comme Pape Seydou Mbaye maintenant trois kon ça veut dire que ni championnat bi ngi dox bu baax a baax a baax te ñu ngi gën a góorgóorlu pour ñeneen ñoo xamante ni parce que ñun porte bi la quoi dañuy laaj dañuy gën a góorgóorlu pour ñeneen ñi mën a dugg si xam nga boo ñëwee fii si ngay doogay xam que ni yow euh, war nga jàngat lu bëri bëri teg sa tànk fu sori quoi parce que boo nee championnat Sénégal ak ne haut niveau loolu beneen dimension la mais nag championnat bi gars yi ñu ngi góorgóorlu bu baax ñu ci xaar seen tànk turu pour jéem a tolloog gars yi mais que ni naa ni que ni daal am na différence quoi. parce que bu sama première fois mu fi ñëw j'ai vu si laa xam ne que ni différence bi gars yi la ñu wax dëgg mais liggéey rek moo la mënee indi fii ça veut dire que ni championnat am na niveau. Cheikh Lo Ndoye gardien de but bu jaraaf bokk kon ci liste boobu yi nga xam ne danañu jongante ak Burkina Faso fukki fan ak ñeent ci weeru novembre foofii ca Bamako lañ koy amee ak itam Burundi fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru novembre fii ci stade Maître Abdoulaye Wade fàttali ni itamit ki nga xam ne moomu di Seydou Sano moom ci gaañu gaañu la am ab cheville moo tax ñu daal di koy forfait ci yooyu ñaari jongante jongante yoo xam ne enjeu bi kon du leneen lu dul place bu njëkk bi ci boobu groupe ndax Sénégal ak Burkina noppi nañ ci qualifié wax ci yeneen i gaynde di di 17 yi ak euh, li nga xam ne moom moo di lion de plage yi nga xam ne kon doon nañ leen sargal ni ki tey ci teewaayu président fédération sénégalaise de football sargal bi nag bokk ci ak chèque gu mucc ayib pour joueur bu nekk ci wàllum U17 yi ku ci nekk daa nga jot un million quatre millions moom la joueur bi ci soccer yi daal di jot ci joueur bu nekk moom Augustin Senghor daal di na cay profité ngir fixer ay objectif ci li nga xam ne moom di coupe du monde ba ñu jëm ci wàllum beach soccer ak i tamit gaynde U17 yi nga xam ne kon noppi nañ ci qualifié ci coupe d'Afrique waaye boobi coupe d'Afrique ban taxawaay lañ ci nar a amee moom Augustin Senghor ñu teewlu ko. dañu am euh, mbégte bu rëy bi ñu dajalee fii ñi nga xam ne ñoo ñu jox loo xam ne lu rëy la muy lan euh, indil ñu raaya euh, bi nga xam ne mooy Coupe d'Afrique beach soccer muy équipe biir nationale beach soccer bi mooy juróom yoon bi ñuy indiwaat trophée bi fii mu nekkoon nag ci anam yu jafe-jafe ñu indiwaale seen wet seen i rakk muy ñan muy u yi nga xam ne ci ay bés ba ñu génn gagné nañu li nga xam ne mooy championnat zonal UFOA A bi nga xam ne moom la ñu jagleel U17 yi duguleet nag mais dañu xam ne nañu ne bële passé Mali moo ko gagné woon fële ci Mauritanie ñu jëlaat euh, mbir mi raaya bi mais rax ci dolli ñu qualifié li nga xam ne muy Coupe d'Afrique bii di ñëw ci U17 yi mu nekk lu am solo donc U17 yooyu ak euh, bi sokki bi ñoom lañu dajalee fii maanaam pour gënal pour sargal leen delloo leen njukkal waaye tamit si euh, suñu tur ak turi état bi jox nañ leen tamit fédération jox na leen prime yoo xam ne mu ngi toll ci ñeenti millions ci li nga xam ne mooy beach soccer parce que ñoom coupe trophée continental ñu indil tuuti tànk yi ñu gagné trophée zonal bi ñu wax leen un million pour encourager leen wax leen nag bu ngeen demee kan bu ngeen euh, gagné foofu euh, prime bi dina a bu ñu amee waajtaay bu baax ñu a xëccu pour dem finale wala sax bu yoon amee ñu indi coupe du monde bu njëkk ci football fii Sénégal di euh, wax aussi que muy ñoom U17 comme kii maanaam U20 yi mais aussi ci beach soccer bi ak yeneen équipe yi qualifié lépp li war ci tàggat leen def waajtaay bu baax dinañ ko def pour que ñu mun dem représenter ñun si anam yi gën a jekk ci compétition yi ñu jëm Augustin président fédération sénégalaise de football ci sargal googu ñu doon sargal U17 yi gagné UFOA ak itam équipe nationale bi soccer bi d'Afrique des Nations jeexal xibaaru tàggat yaram ak beneen discipline di rugby ci wàllum jigéen ñi A7 ñoom ñi nga xam ne itam daal dinañ ndar képp lii di Coupe d'Afrique des Nations ni dimanche gi fàttali ni ci quart final Afrique du Sud da leen daanoon ba tax na ci dimanche bi ñoo amoon ñaari match de classement waaye xëccoo juróomeeni place bi Zambie moo leen ca daan fanweeru poñ ak benn la leen daan ñoom ñu am juróom ñaar bañ ca noppee ñu amaat beneen match de classement ngir taxawandi ci juróom-ñaareelu place bi foofu itam defeet lañ ca jëlee ah, ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di Ghana ma leen daan 17-0 waaye nag bu ñu sukkandikoo ci seen entraîneur di El Hadj Omar Cissé jàpp ni objectif bi atteindre nañ ko ndax moo di woon bokk ci fukki équipe yi njëkk ci boobu compétition ñu teewlu ko ci RFM. waaye ñu ngi jeexal tournoi bi ci bilan boo xamante ne gi mën naa wax que ni dafa mitigé ci lu tax ñu wax loolu parce que boo xoolee tey suñu deuxième journée bi dañ ko joué sans sans victoire donc euh, et mais malgré loolu noonu yëpp a euh, suñu objectif bu ñu fixé woon avant ñoo ñëw Ghana donc atteindre nañ ko mooy kañ lan dañu euh, suñu objectif mooy que ñu fexe ba bokk ci première yi donc tournoi bi jeex na ñun ñoo classé au place bi donc pour dire que ni avec sacrifice ñu daj yëpp durant la préparation tey ñu ngi nii tey jot nañ ci li ñu bëggoon a jot voilà di jaajëfal ñëpp aussi. El Hadj Omar Cissé entraîneur équipe nationale rugby à sept ci Coupe d'Afrique boobi ñu jóge boobi Coupe d'Afrique sax fàttale ni Afrique du Sud kon moom moo mujj jël li nga xam ne moom moo di raay bi ndax Kenya la daan 19 10 ci match de classement bi muy match troisième place ki nga xam ne moom moo di Ouganda moo ko daal di euh, jël gannaaw boo mu daanee Madagascar 17 5 waaye ñoom ñeenti équipe yooyu di Afrique du Sud Kenya Ouganda ak Madagascar qualifié nañu ci li nga xam moo di série